ba final Toubacouta Bour Saloum ak Babo Niodior le 15 février 2023 à Toubacouta Toubacouta bi biir Toubacouta Touba moo ñu woon gannaaw Babo moom jàkkaarloo la wax Babo jël La Moussa Méconi, du 23 au 26 février, premier jour 30 000, deuxième jour nag ak 25 000 francs, troisième jour ñaari nag ak 10 000 francs, quatrième jour ñetti nag ak 15 000 francs, animation Babou Sène ak Fawal Mbodj. Làmb Saalum Babou ñoo jor ɓurɓonu won kadi hawtu bakuta baba woni o jour mom len jakaɓe premier jour 25 mille deuxième jour 50 mille troisième jour benn mat ak 30 mille francs quatrième jour ñetti mat ak 15 mille francs animation fama joot ñibi seen Lambe Nioro Alassane Tall du 27 au 28 poids léger ñaari nag ak trente mille francs poids lourd cinq nag ak cinquante mille francs animation Baye Loum Mor Ngom. Buur Saalum Toubacouta le 20 mars Babo Niodior poids léger trois cent mille poids lourd sept cent mille animation Mayang Wood am na combat spécial Adama Diola Boubacar Keba Mark 36 ak Yaya Dega lamb Mayang Wood du 17 au 18 février premier jour 300 000 deuxième jour million Kër Farba

waaw waaw Tambacounda mbëru Ngagne Sarr te Ndofane borom France arbitre Tambacounda Tambacounda la ilaha illallah tante na mot mu moy Touba eh Tambacounda daan na Baba Niodior Tambacounda daan na Baba Niodior